il est 9h25 minutes euh, fii ci biir studio a mbay euh, immeuble El Hadj Elimane Ndour euh, rue 15 angle Corniche di nuyu Aliou baax di nuyu Mamadou Ndoye Bane di nuyu Mamadou Mohamed Ndiaye maa ngi lay ziar bu baax Bane. sama waa ji maa ngi lay bégee di la ziar bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di ziar l'homme de Ngabo et de la Petite Côte. ñu ngi koy ziar bu baax a baax. Mm-hmm. jërëjëf. waaw di ziar waa réew mi ak waa bitim réew ñi nga xam ñi ngi déglu. Euh, di ci jiital wa Pire sañu xoor ak la ko wër. Mhm. ñu ngi leen di yàlla nañu yàlla may talib meewaan bi ak lycée bu bees. Mhm. sama waa ji Ndiaye. waaw Ababacar. doo dof de noo def. sant boroom jamono. yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi sant bu baax a baax. mbaa lépp jàmm rek. waaw ah, maa ngi maa ngi rek. mais njaxat li tax mu baax. Ah, yàlla na fi yàgg loolu daal ñu ngi naan Ndoye Bane. Mhm. di ko jàppale ci loolu muy jooy. tali meewaan bi ñu defar ko. wut ab lycée ca dëkk ba. lu xew eh, xam naa bu ñëwee nag marché la ciy teg. <laughs> ban xalaas bi nga xam ne moom moo njëkk fu mu toll. jaajëf euh, sama waa ji ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax am na benn xale boo xam ne ay fan ngi nii euh, dafa réer. Mhm. mais mi ngi ci kër buur géwél Abdou Faye mhm. buntu Pikine. Mhm. xale ba yàgg na fa lool lool xale bi mi ngi tudd Jobba Fall papaam tudd Thierno Fall yaayam tudd Astu Mbuub su fekkee dégg ngeen ko na ngeen jokkoo ak wala ngeen dem fële ca buntu Pikine ngeen laajte kër buur géwél Abdou Faye xale baa ngi nii ma fa. ci kanam naa la jox beneen xale boo xam ne tamit dafa feeñ ma nga kër chef de quartier Liberté 5 ba. Mhm. ki nga xam ne moom la fi le belge la sénégalais belge boobu. Ah. nga xam ne moom lañ adopté woon. yaayam réeroon yaayam réeroon ko. ba mu mhm. ñëw fii ji ñëw fii toog. Mhm, euh, wax mi ngi wax ak yaay ji. ñu ngi wax téléphone jooy ya bari na trop affaire ya triste na lool. mais e, moom mooy moom mooy moom mooy wax fii après bi mu waxee yaay ji boo ak ay sœuram ak i frère euh, yi daal doom doom yi nga xam ne moom la yaayam am après euh, déglu ko. Non, en tout cas, je voulais, je voulais remercier euh, RFM et toutes les personnes qui sont, euh, qui sont investies dans, dans, les recherches parce que franchement, sans, vous tous, j'aurais jamais, j'aurais jamais pu retrouver, euh, j'aurais jamais pu retrouver ma mère. J'ai fait beaucoup de recherches de mon côté, mais voilà, apparemment, même si si dès le départ les informations elles sont pas bonnes, il n'y a que des professionnels qui peuvent qui peuvent réussir à trouver une solution et c'est exactement ce que vous avez fait. Je vous dois vraiment beaucoup beaucoup franchement. Vous m'avez vous avez rempli une partie de moi-même là. Il y avait un vide, vous avez réussi à le à le remplir. Franchement, merci pour tout. Je j'oublierai jamais ce j'oublierai jamais tout ça. Franchement, c'est c'est c'est euh, le plus beau jour de ma vie, je crois. Donc euh, franchement, merci, merci, merci à tous. Merci. J'étais en train de parler avec elle depuis tantôt. Et franchement, euh, je voulais encore vous dire merci. Hein. Franchement, parce que c'est, n'y a pas de, de plus beau moment dans, une vie, en tout cas dans ma vie, en tout cas, je crois que c'est un des plus beaux moments. Je, je viens croire que j'avais une famille, que j'avais des petites que j'avais une grand-mère, que... vas-y, non, c'est trop. Voilà, je suis trop ému. Donc franchement, je vous le redis encore une fois, merci, merci, merci. Parce que sans vous, je serais encore au même point, je serais encore au, point de départ, sans, sans aucune avancée, rien du tout. Et franchement, cette émission-là, c'est un truc sérieux. Hein. C'est vraiment un truc... Euh, ah, vous, vous, réunissez, des vous réunissez des familles. Hein. Voilà, vous... Non, c'est trop. Franchement, Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. lu xewoon Thiès Ndiaye benn femme bu doon woote benn xale bu jigéen bu ñu waxoon dañ ko dañ ko enceinte woon bi mu amee douze ans après actuellement mi am dix huit ans. xaw ma la ne faram da koo séquestré fan xaw ma ñaar. voilà nga xam ne sëru far bi sax moo ñëw fëgg ne ko loo fi def. c'est ça léegi nag Cheikh Anta dem seeti na na farwa. mooy ki ne ki ne moo ko séquestré woon moo ko séquestré. wax na wax na de. jox ñu wax na wax na de. jox ñu waaw yow yaay faru ndaw si génnoon jamono yi doon wax naan. waaw euh, dañu ko tëj si mu nekk ko yow yaay faru. d'accord man mii la parce que on s'est connu mhm. sama benn jarbaar la ñu doon létt. léegi bi ngeen xamante ñetti fan. sa bi ñu xamante boo xool bi ma ko bi ñuy déclaré projet dañuy génn premier jour bu ñëw suma kër fekk may jàngal suma élève mhm. bu mu ñëwee mu yegg si laaj suma euh, gadbaat bi ñu ne réparateur ordinateur non man c'était un métier boo xam je le faisais autant mais maintenant je suis enseignant damay jàngale ay booy j'ai 49 élèves de la CI jusqu'à la troisième secondaire français anglais espagnol tu vois donc tu dois laa nekk ba jour jours, jour bi mu ñëw mes élèves étaient témoins mes élèves étaient témoins taxaw

dafa ndaw rek parce que taayam mooy nax moo tax ñu bëgg a profité ci taay boobu créé une histoire boo xamante ni fantôme loo xamante ni amul parce que ay nit tamit bu ñu wax dañuy wax loo xamante ni dëgg la man j'accepte ñëw na kër ga bu ñëwee kër ga expliqué problème boobu sama digganteeg yàlla ma ne ko léegi qu'est-ce que tu reposer nga dallu fii ba ngoon dinaa la yóbbu seen kër man su ma demee dinaa assuré wax naa dalloo sa néeg sama néeg la doon dalloo hmm. comprendre moom ak suma garbaat bi xamante ni bëgg gis ko ma ne ko léegi bu guddee dinaa la yóbbu nga dem seen kër mu ma ne ko la dem mu commencé jooy bu ma ma ne ko yow yaa kale tom man ne man bi xale dañ ma violé woon man kan moo la violé woon woon ma ne ko sa papa nan la sa papa di violé comme an sa papa mun ma sama papa dee ma ne kon loolu du ma ci waxaat benn crime laa def mooy hébergé naa ko pour jéem a xool nu ma ko fagalee problème am ak nu ma faram bien sûr on sautait. Mm-hmm. bien sûr mu ñeu fekk ma ci euh, Orange Money bi ma jëndal ko fa diw jëndal ko parfum tu vois. lu bàjjenam wax na ko nee né na indi na fa ay parfum ay diw ak yooyu. benn diw c'est à 2000 francs c'est buntu kër sax laa ko jënd parce que j'ai passé bu gis ma wooma non non aw soxna. mais yow am nga soxna. non aw ma soxna sincèrement musuma am soxna. xam nga léegi su élèves ñu ngi foofu ma ngi jàngalee ma ngi bàyyi xel ci moom chaque instant du nekkuma quoi ben instant le mu fanaan fa le mardi bu ñu xëyee mooy yee ko na ko jógal foog nga dem ñibbi. parce que ah sa néeg la fanaan ah. sama néeg la fana seen ñaar yena a bokk fanaan ñaar ñoo fanaan léegi fin de l'histoire la indee foofu benen problème pour ñom ñu xam plan di ngeen fekk nit mu dund ben affaire nek ci ben jàmmam ben tranquillité ak jërmaal ñu dundloo ko ben affaire bi man je suis majeur mak la quoi j'ai 39 ans comprendre mm. amna tay ji waroon naa am soxna je suis le seul garçon de ma famille hein mais je vis une chose bo xamante ñi sax suñu waa kër mosuñu ko xam mais ñom ñomay pousser tay ji ma wax ko mm-hmm. ça fait 5 ans que man je suis impuissant donc faut pas venir ma bien sûr. donc ko lu non xaw ma je sais pas dama xëy un jour ça m'est venu comme ça maa ngi dox ci loolu noonu. Hmm. comprendre maa ngi liggéenti m'a ngi ci sama tranquillité bopp. Hmm. sama yaay xamul su may rakk xamuñu kenn xamalu ma loolu. parce que je naa ci âge boobu ma koy au au plus profond de moi-même. tu hmm. vois quand donc des gens viennent monter un coup amener leur fille man kooku bu ñu nekkee nee na dama ko séquestré dëgg bu baax ku ñu séquestré bu le lundi boobu moo xëyee ñu génn ma ne ko léegi mënoo di yenn si néeg bi ça ça fait mal fait tangue mu génn ñu génn dem kayaar maak moom dem à la mer bi ñu demee toog foofu ma jëndal ko lu mu soxla yëpp bàyyi ko foofu mu plané ba si ngoon gi ñu ñibbisi bu ñibbisee mu ne ma dafay sangu pour soog dem seen kër ndax géej la jógee ñu dem ñu toog foofu ma ne ko kaa nga toog fi mu ne dama bëgg a silanteel ma ne ko mën nga silanteel lan moo tax nga yóbbu ko pour mu am sax benn tranquillité bi dem toog rek en face la mer comme ça. parce que nee na bi ngeen demee Kayar bi ngeen toogee ci plage bi yow da ko dig ne di ko takk. dama ne boo demee seen kër rien que pour bañ mu saviré wu dem dund leneen boo demee seen kër dinaa yónni samay mbokk ñu ñëw ñaan la ñu may ma la. est-ce que la ba moom si jëm boppam sax un jour bi ñu njëkkee nekk na mu ne ma pourquoi tu me fais pas l'amour man ne ko man j'ai donné je man dama décidé que ni man dama décidé man tant que aw ma soxna du ma tëdd ak beneen jigéen. Quand donc je me vois être accusé hein, de viol, des trucs yoo xam y' a aucun médecin au monde qui peut prouver que j'ai fait l'amour avec lui et je j'aurais préféré ça bu que non, la demee quoi Ben instant mais loolu amul. fanaane ci néeg bi yéen ñaar peut tëdd ci lal bi. un petit mat un matelas ni comme ça bu mu ñëwee moom mu tëdd foofu man maa ngi sumay connexion dama yor benn kii si laay nekk connexion ak suma classe yi bi ak yenn heures yi. kon moom daf la que ne moom mi ngi ci moi? deux mois. loolu ma man je n'ai kidnappé personne je n'ai violé personne elle est venue chez moi de son propre gré. koo xam dañ la kidnappé léegi nga ñëw ànd ak nit ki ngeen dem Kayar ba ñibbisi bi ngeen ñibbisee Kayar mu bàyyi la si benn mille dem am ko woo téléphone mu yëkkati 37000 francs dénk la dem yoonam ñëwaat fekkaat la foofu nga toog kooku dañ laa kidnappé ak seen kër matu sax un kilomètre mën na ko yooyu tu ne voyais pas le faire tux ko ko teg ah ak tutuwaayam non kooku man sama jëm bopp ah moo ma gën a capable man su nekkoon ne si kii ci côté bu nekk ah il faut qu'on fait des tests après dinañ xam li ma leen wax noonu lan la d est elle est de petite taille c'est sincèrement boo gisee da nga i gaañal bi xanaa dafa dof elle est de petite taille mais nous capable wallahi lesi man man mii capable lu ma ko damay taxale ñu élèves yi di fay chaque mois deux francs pour garder xam nga ma dignité maladie bi ma la wax rek prouvé na à 100 pour cent te nañ dem ñu dem def test je vis mon mon mon mon malheur maa ngi koy dund merci merci ça me fait mal de le dire hein, hein mais je dois le dire Ousseynou Sy mi euh, baan man Ousseynou. la daal xalaas moom ah Diallo muus la de Ousseynou Sy mooy Ousseynou Sy ma ca Italie. ci bëggoon na taal booy. voilà kii di wax ni. Uh-huh. magam la ñoom ñaar a bokk ndey baay. moom ak Ousseynou. waaw xam nga kenn déggugul benn mbokkam bu wax. man kay jaaxal. waaw exclusivité bi nag fii la. moom ak Ousseynou ñoo bokku ndey ak baay ñoo di bokk ndey ak waa ji moo namp jox Ousseynou. ana jingalu xalaas bi yow nga ni kenn waxagul seen famille. kenn famille dégguma seen benn famille wax. kii bu waxee mooy ki njëkk wax seen famille. voilà te yow ya ko am en exclusivité fi ñu toll nii. voilà léegi hmm? te ñoom dañ doon wax naan am na ñu bari ñu doon wax naan aussi Sy du sénégale waaw léegi may ma tuuti. waaw dama laa waroon a tàcc mais weer wi daa sori. <laughs> service minimum rek laay demee fi mu ne. xam nga Ousseynou si soo ko xoolee ak photo bi. Ah. tem nga ni du sénégalais. dégg naa ñii naan si yaayam mooy sénégalais papaam xoma lan la Ousseynou si français xoma lan ak lan ak lan mag ju góor ji ci boppam. comme bokkal ndey ak baay wax na fo fu Ousseynou si juddoo nu yaayam tudd nu papaam tudd wax na ba hôpital wax hôpital ba mu ba mu bu juddoo. parce que man dégg naa ci benn version ñu ne ñu. Uh-huh. papa ji Cuba dëkk. Mm-hmm. yaay ji mooy sénégalaise moom santu yaayam la yor mm-hmm. loolu dégg naa ko papaam ndax dafa gaañu yaay ji muy dund jamono ji hôpital abbas ndaw gii la juddoo recommandé noonu la ko waaji waxe ku wax ci famille bi nga ni magam bu góor tungu ne du teew ñuy natal dégg nan man amat si magu Ousseynou si maa namp jox ko balaa mooy mën wax lenn maa ngi tuubal yàlla ak yonent bi di tuubal bépp sénégalais bu nekk Italie di tuubal toute la population italienne en particulier la famille des victimes di tuubal nag képp kuy sénégalais di xamal na nag man maa nàmp jox Ousseynou Sy Ousseynou Sy sénégalais la Sy 2 juin 72 la judo Abbas ndaw Ousseynou Sy mungi ngi école cerf-volant Ousseynou Sy mosuma ko àtte daawul wax bañu tudé ko Pape Mouma muy Ousseynou si mii Ousseynou Sy loolu de la ko xamé won si mom Ousseynou si mungi dugg Italie le 27 novembre 1989 instant bobu il n'avait que 17 ans 5 mois 25 jours taseeg ndawas tubab bi ba 99 bi sama rak gaño si la Ousseynou si ñëw ñu tase ci nekk ci dëj ba ci laa gis jabaram mu wax ma waxu nationalité italienne am am lu mu si wax dellu novembre yónnee ma man maa dox kayit yëpp extrait de naissance nationalité bonne vie et mœurs copie littorale maa def tradition yi maa ko visé affaire étrangère maa ko yóbbu ambassade lépp maa ko def man sa nationalité si la ma jàppe nag ñu nekk nekk tantôt mu woo tantôt du tantôt mu tantôt du ma ñu dem ba 2005 ma feebar pendant cinq ans mu ne ma grand bu chaque weer nous yónnee ma cent ba 2010 mai 2010 ma gëj a dégg Ousseynou si sama rak ba novembre 2018 8 ans 23 heures et quelques le 17 novembre bi passé sama j'étais content mais nag j'étais pas content parce que dafa ma woo di joy jooy yu metti naan ma diw woor na ma diw woor na ma ratatatatat yow rek yaa ma musul wor te yaa nàmp jox ma j'ai fait vingt neuf ans en li musoo ma wax may ma damay xaru amaat ma ne ko déedéet lu ko fi jar yeddu ko wax wax wax mu ne ma du ma ko def waaye dinaa woon diw ne ko toroxal nañu ma ne ko déedéet bul def dara yow toogal yaa ngeeg say doom yaa ngeeg say lii waxuma ni sax ndekete fase après laa xam ne fase na doomam si jabar baan xoola âge bi mu dem ak nam fa tëddee il n'a pas de repère il de repère nañ ko dimbali nañ ko jàppale sama rakk la nag li mu def ëpp na wax dëgg neex yàlla waaye du ko bon du ko soxor ñàkk repère il n'est pas un du athée du atee nit ñi nag dañuy wax rek booy bi du atee waaw ñun sénégalais pur sang lañu dafa xees nag man soo ma gisee damay ñuul waaye loolu yàlla la du si moom mais sénégalais la ñàkk repère ñàkk fu mu taxaw xoola quatre-vingt-neuf mu dem Europe taxawe ne dugg si biiri tubaab kii dina am temps wu dugg si communauté kii déedéet amul woon repère waa dem nañu nag ba mu am déception si propre famille am déception si jabaram xëy na ak lañ ko privé li ma dégg li lañ ko privé ak doomam te ma xam ni sama rakk ñemewul wéetaay paap ku baax la xol bu rafet la yor am na naqar nag yow rekk laa am wax na ma loolu wax dëgg neex yàlla ba ma ba ma ne ko man bi ma romb cinquante ans di xalaati Italie ba nga ko mënee peut yàlla tudd ko woon baan booy bu bien ngi ah, nii xaw ma de wax dëgg neex yàlla ñu koy wor di ko lépp mbir maa ngi seen si loxo yàlla. ngeen doxale est-ce que am na ñu koy soutenir fële ay mbokk yu koy taxawu fële ca Italie. magam bu jigéen bu mu bokkal benn baay mu ngi fa. magam bu góor bu mu bokkal benn biir boutique mu ngi fa kenn taxawul xale bi tey ñëpp a daw seen responsabilité. waaw euh, léegi dama bëggoon a xam moom ana papaam. ana yaayam ana mbokk mi nekk Sénégal fii nii ak bi ngeen déggee affaire yi euh, naka ngeen ko naka ngeen jote xibaar. sama papa euh, papa Ousseynou Sy mu ngi gaañu le 26 sama yaay mooy yaayam mu ngi dund mu ngi fi mbir mi dépassé na ko ëpp na ko loxo ay mbokkam ñu ngi fi. mais toute sa responsabilité man mako yor man yor tamit de cinq ans 7 ans ko d'accord waaw legui dama deg ñu ni dafa am ay domam yo dañu ci ngeeg gi oh, mom motax mu def def. si je ko Ousseynou amul ñetti océan Atlantique il n'est pas né en France. amul amul il n'y a pas des enfants qui ont traversé l'océan juddoowul France juddoowul France Ropa Mandel fii sa waa ji Guèye doon wax Ropa Mandel actuel Abbas Ndao fu la juddoo j'ai tout man maa yor këyitam yëpp ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko kon baax na si laa jëlaatee risque traversé diggante frontière Inde Bangladesh actuellement ma ngi Bangladesh voilà parce que depuis ñetti at tamit nga nek ci dëkk yo xamné ni xamoo fi kenn mëno fi def dara tamit parce que dëkk yi ay dëkk pauvre lañ am amuñu dara sax amo dara lo fi mëna japp pour diko liggéey wa lay man dal leen la bëgg moy ñibé sama ambassade nak joytu na len ko bés bu ne yor naa seen numéro yor naa lépp boo leen oowee sax duñ la décroché légui ambassade bi mo fay mujjé dem dernière fois bi dama dem di wax même pour am euh, carte consul c'est carte consul même def nañ ma une semaine foofu non pour ma am ko pour mën jël train pour génn Delhi parce que Delhi instant boobu noonu New Delhi and guy policier policiers non sonal foofu ni ñu ñul ñi té buñ la jappé directement lañ lay yobu prison wa lay man pour ma jóge fa carte consul la demoon aussi ambassade bi mais même carte consul boo demee si ambassade eh, yeneen ambassade di ambassade Côte d'Ivoire ya da ngay taxaw ñu defaral lako man bima newe sama ambassade sama carte consul ëpp na sax une semaine pour mu pare mais tay bu ñom bu fekkee ñun lañ fi togal waro dem fofu nonu ñu ne la carrément sa mënu ñu ci dara du ci jappalé du ci dara wa ah, man dugg naa si lu ne pour ñibbi bima démé e, ba am touti dama ñëw ne amna touti ndax do ma jappalé ma jëf traverser dem Bangladesh comme fofu mo tané au moins fa di nga fa nekk sa jamm police du la sonal mais liñ ma tontu mënu ñu la dimbali ci Uh, ah, actuellement man ma jëlaat sama risque bopp traversé wat frontière Bangladesh and actuellement maa ngi Bangladesh. man kay si fini fi mu toll nii si fini fii kay laay dee end laay dee fi mu toll nii na ko Inde laay dee fi mu toll nii loolu amul sax ma dem te ñëw. xalaas. waaw. beneen xalaas bi ci topp kii luy problème am. Mm-hmm. kii nii. Mm. dégg nga ko mu ni est-ce que sama doom la wala du sama doom. Mm-hmm. benn sénégalais la woon bu doon préparé wu pour dem euh, pour waaju tukki mm-hmm. léegi mu gis benn xale bu jigéen dajeek moom génn ak moom am lu mu séq ak moom bi mu demee même pas deux mois trois mois xale bu jigéen bi woo ko ni ko damaa ëmb mm-hmm. xale bi jigéen bi dem quelque temps après mu am doom ay six mois daal bi nee naa doom ji daal matul neuf mois mm-hmm. bi doom ji am bi mu amee doom nag léegi ñu ni ko doom ji fa nekk euh, crèche affaire yooyu loolu lañ ko doon famille xale bi rak magu xale bu jigéen bi doon euh, doon wax mu wax ko yaayam yaayam dem def loolu tey xale bu jigéen bi nekkoon dakaar bi yoroon xale bi Dakar envoyé ko Ziguinchor ni yaayu xale bu góor bi xale bu góor xale bu jigéen bi so doom ëmbalu ko ndax ëmba tax ma takkal ko ay bagaasam Ndakaaru delloo ko Ziguinchor yaa ngi dégg bu baax. te boobu xamantewul ak waa ji. boobu xamantewul ak waa ji ba mu demee Ziguinchor nag fa la dajeeg waa ji te diggante bu gàtt ñu seq li ñu seq waa ji tukki na. ñu bal ma ci kàddu gi waa ji daa fecc li kon. voilà léegi nag waa ji ci boppam ba mu toogee ñu ne ko da ngaa ëmb léegi waa ji jàpp ni jàpp li ndaw li ko ndaw si wax. Mhm. yaay waa ji jàpp li ko tàntay xale bu jigéen bi wax ni ko xale bi sa doom ëmbalu ko nangam ak nangam ak na ji daal moo moo jël dil bi. léegi nag famille xale bu jigéen bi ci boppam. Mhm. ni waa ji say mbokk dañoo bañ. soo ko soo suñ ko bañee dinañ ko defanteeg yow di nga xam ne ñun ay lii lañu wax benn xeex daal di nga xam ne ay lii lañu tëkku xale bu góor bi yaayu xale bu góor ji góor bi ak ay ndijaayam lànk ni doom ju sunu doom juru ko waa ci boppam nee na moom fi affaire bi daf ko traumatisé depuis des années 2006 ba léegi mi ngi bitim réew mi ngi am mi ngi liggéey am na xaalis nee na ma man grand man am naa xaalis yor sama doom yor sama papa yor sama yaay ba am naa kër sax bitim réew mais munumaa ñëw Sénégal tëkku bañ ma tëkk woon laa jàpp ni looloo tax mun munumaa ñëw Sénégal. Hmm. mu yéex léegi doom jooju nga xam ne dañ ne ko du sa doom. Hmm. la famille famille waayu ko xale bu góor bi dañoo bañ. Hmm. jël na doom ja déclaré ko fële ca Espagne. jàpp ni doomam la en attendant muy leer. xam ndax comprendre bu baax a baax voilà maanaam jël na les devant daal waaw jël na les devant déclaré ko mhm. déclaré wu ko fii Sénégal mais jàpp na ni doomam la dugal ko ci ay këyitam pour su yëf sottee mu mën di toppatoo doomam mhm. mais fi mu nii lëj-lëj bu doy waar que ni doom la doomam la wala du doomam te mhm. jàpp na ni xa waa kër famille xale bu jigéen mi dañ ko liggéey liggéey boo xam ne fi mi nii dafa nekk am ay problème bay waaj dof léegi yéen seen léegi yéen euh, ginnaaw waxtaan ni yëpp yow sa ci fu nekk fi ñu toll nii. waaw lu muy jàll kii li waroon jàll yëpp jàll na. la ñuy déglu. déglu déglu rek. laa ko mën a waxee peut-être am solution pour jàppale ma ko quoi. dafa am benn gel bu ma nekkaloon. laa nekkoon ak moom bon après ma nekk moom ma jógee Sénégal ñëw Espagne. quelque temps mu woo mu woo ne ma dafa nekk enceinte donc bi mu nekk enceinte bon comme man la nekkaloon ensemble bon aussi tamit ma décembre la mais ñu demee ba si biir nag bon moom man maa ngi egg si septembre laa egg si Espagne euh, na doom calculé di diggante bu bu bu yàgg bon woo ko ko pour mu def euh, tànk mag daal xam nga xool li si war lépp ñu def ko mais bi xale bi juddoo famille bi dañu waxoon ne ma mi sœuru gel bi daf ne ma xale bi kat bi mu juddoo motul dañ bi mu juddoo motul dañ ko dugaloon si kees pour affaire yi pour xale bi mot quoi comme temps bi euh, ak moom bi muy judd sept mois motul sax sept mois c'était six mois deux semaines net loolu la tombeel bi mu demee nañu xool ne lañ ko wax loolu amul xam nga lan la expliqué woon dafa xale bi motul léegi ñu ngi si kees ak yooyu yëpp fekk nga xam ne moom la xale bi ñëwoon Ziguinchor man bi may xamante ak moom kooku ne nag man ëmbalu moo ko ne ma xale bi ne ko xale bi kat bi muy jógee Dakar di ñëw Ziguinchor ba may xamante ak moom dafa indaale ëmbam ay dégg donc léegi mu doon problème boo xam ne problème bi difficile donc léegi ñu am si problème léegi famille yi tëkkuma si xam nga ay famille tëkkuma xam nga coow fii donc boo ko fekkee man sur le feu bu e dañuy def ay test ADN yëpp man mën naa ko def mën naa envoyé fii sama ADN yónnee ko Sénégal moom ñu dem test ADN man ma fay li ci war lépp comme ça bu xale bi waree am këyit sama tur ñu xam ne fii man maay bàyyi wala loolu daal problème bi daal daf maa étonné trop quoi bu ma la guddi yi te daf ma doon loo xam ne fii su ma nelaw guddi du ma du ma ne may sentir quoi c'est pas normal quoi. di coow li jógee parce di coow li sax parce que man li Mhm. parce que logiquement gis nañ situation yi xew foofu xale yoo xam ne ci dañuy dañ leen bàyyi seen yaay ëmb mais fekkente ne yaay ji séqul ak papaam bi ba yenn moment xale bi même bu juddoo it day am benn manquement buy am loolu c'est logique donc man tamit xam naa ñoom foofu lañ ma jaare woon léegi ñu ne ma xale dañ ko war a téye deux mois encore hôpital si kees yooyu te yooyu dañ ko war a fay donc affaire bi ñoom xaalis lañ jiitaloon boobu su ma xoolee ba si biir après problème bi xaalis lañ ci jiitaloon yaa ngi donc sama yaay si laa ko expliqué ko sama yaay tamit dem yónni sama nijaay sama nijaay mi ngi Dakar cité Fadia kooku si la dem bokk euh, euh, ut adresse bi ba dem ba seen kër bi mu demee mu fekk gel bi mu ngi en normal fekk doom jaa ngi normal dara manqué wul dara mu comme ni ñu ko waxee woon sa kon dara dara nekku si comme ñoom ni ñu ma expliqué ak li am ça fait deux léegi na sama yaay si la dem aw utu tante ji nag quoi ne ko man ka sama doom lii la ma wax léegi léegi nii kii ne ko non non sa doom jurul xale bi ne ko xale bi problème ëmb bi mu amee moo ko jëlee Dakar kër yaayam si la ñëw laa xosi si si man man ma fat ko. Mm-hmm. d'accord kon yow kon kon kon yow kon yow dafa bàyyi ba nga dem Espagne mu doog la wax ne la yaa ko ëmbal. waaw. kon tegu dëgg moom. justement loolu la kaa bi de jox waaw su fekkente ne man réellement man naa jur xale bi hmm. man aw ma benn problème ndax am na ay doom fii te aussi mën naa koy gérer comme sama doom yaa ngi dégg peut-être moom mooy doon sama premier doom bu la yaa ngi dégg moo daal man monsieur ut ndimbal xool ban situation ak nan lañ ko mën a jaaree ak nan lañ ko mën a régler situation bi ba situation bi féetee boor xam nga parce que la boo xam si mënu ma la te bi loolu amee ba léegi bon man ma xuloo si ndax gel bi sama yaay da ko woo téléphone moment boobu ñu xuloo fi ba saagante fi xam nga rek entraînement nga xale bu jigéen xam nga saagante bi man sax dama dal ci problème ne ko waroo woo doomu jàmm di ko saaga lii xew xew na ba pare nañ xool nañ ko arrangé mu jeex xam nga saraanga boogoogu man affaire bi dinaa ko jàllale xalaas ñu xool nan lañ ko réglé parce man aussi may bañ bu ëllëgee aussi tamit xam nga mu ñaaw si te aussi bi problème bi amee ay ba léegi dafa mel ni mi ngi doon dëgg ndax yàgg naa fi maa ngi sama nationalité na am naa kayit bu yàgg sama yaay nag moom jëlul affaire bi au sérieux man personnellement ma dem koo jël au sérieux parce que man xaw ma lan la même sama yaay souvent la kañ ngeen ñëw kañ ngeen ñëw man itam ba léegi man sama xel sax dafa newul teg sama tànk Sénégal. léegi yow tëkku yow tëkku tëkku tëkku par rapport ak lan la pour que pour que pour que nga nangu ni yaa jur doom ji wala pour nga pour lan la waaw tëkk bi ñu ma tëkk mooy que que ni comme quoi que ne man dama ëmb seen doom reconnaître ma ko donc kon man tey lu kii rek moom lu ma gis rek mooy ñooma daal mhm. te loolu ay jamono lañ ma ko fonte boobaak léegi yàgg na boobu c'était dans deux mille sept ba léegi sonal quoi mën a réglé daan su fekkente ne man maa jur xale bi réellement mhm. man ma xam ne man maa jur xale bi su lu ma lu si war man ma def ko lu ma si war a taxawee dinaa si taxaw su fekkente ni juruma ko si tamit man loolu wàcc ma quoi sama conscience mu tranquille quoi man ma tranquille sama conscience man sama bopp quoi man rek sama benn këyit ko ñoom ñoom yoruñ sama benn këyit hmm. xale bi tey ko doon man Espagne laa ko déclaré parce que on sait jamais parce que internationalité dañ lay laaj loolu da ngay joxe say turu frère sa turu yaay ak say turu doom ma ne en cas bàyyi ma def si ma inclure turam si biir kii bi euh, livre familial bi pour en cas bu bu fekkente ne li may dox bu sottee yàlla def ne mu fekkente ne sama doom la nga xam ne dina mën naa ko mën a jëlal këyit facilement pour indi ko pour indi ko Espagne man loolooy sama problème. moo tax ba inclure ko parce que dama ko def pour en cas. man de Espagne laa ko déclaré mais Sénégal aw ma benn këyit bu ma liyee ak moom fii am naa fi ñaari doom. bii moom social bu doy waar la parce que fii benn femme la boo xam ni ngi woon euh, bitim réew. Euh, yoroon fa benn nat ci ay ay ay ay ay ay kii ay jongo muy doon natt daal am ci koo xam ne da doon natt décédé am mu dugal te femme bii xamatul kooka xamul benn mbokkam bu dul benn doomam bu nekk États-Unis bu tudd papi léegi nag xaalis bi xamul nu mu koy def. Hmm. te ndaw sa gaañu na xamul benn mbokkam. te ma nga xaalis ba. ba ma nga xaalis ba léegi nag kenn rek la xam ci doomam bi muy ku tudd papi parce que moom ndaw si doon wax téléphone mu koy paas doom ci papi. léegi maire ba gaañu na xaddi siin mii moo décédé moo moom xaalis bi jox ñu ñu déglu déglu. Euh, dafa am benn euh, sama benn collègue daal bi nga xam ne dañ doon liggéey ñun ñaar léegi nag euh, yàlla def daal mu gaañu bu mu gaañoo mën na yàgg na tuuti léegi fekk moom <clears throat> ñu doon liggéey mu wóolu ma daal mu daal di dugg ci sama benn natt bu mu duggee ci sama natt bi mu natt mu natt. ba am ay moment daal yàlla def mu feebar waaw dafa feebaroon sax da ko doon sooxaale rek après mu nekk hôpital ma dem foofu seeti ko après mu génn léegi continué wul natt daal mu ne léegi day arrêté comme que dafa feebar ma ne ko waa dëgg la amul problème nit moom boo feebaree moom nga bokk ci nit nga feebar mënutoo continuer léegi daal mën nga arrêté amul problème léegi nag euh, loi bi nag boo arrêté léegi bu fekkee génne wuñ la yow yaa arrêté bu natt bi jeexee dañ lay jox sa xaalis léegi nag man defuma loolu damaa seet nit ma remplacer ko pour kooku gaaw a teggi pour mu mu jot xaalis bi léegi nag bu kooku bu mu gaañoo kooku tegge natt bi ma daal di jël xaalis bi daal di koy denc léegi may wër ay mbokkam pour ma jox ko ko parce que man xaw ma benn mbokkam fi mu nekkoon tamit dëkku fi woon ak ay ay mbokkam daal ñun ñëpp ay xarit lañu ñuy rek man nag man ak moom ñoo doon liggéey benn liggéey maak moom te bu muy bokk ci man euh, wowul kenn seedalul kenn daf ma wóolu ngir yàlla ak yonente bi mu jox ma natt bi am na lu mu ci doon jublu waaye yàlla daal moom mooy dogal léegi nag comme yàlla def na nii benn doom bu góor la am doom bi mu ngi Amérique waaw doom bi góor bi mu ngi Amérique moom ku jigéen ki xadi siin la tudd xadi siin waaw xadi siin la tudd euh, doom bu góor bi nag mu ngi tudd papi papi la tudd papi la koy woowe mus naa wax ak moom sax téléphone fekk ñuy liggéey mu paas ma ko téléphone ñuy wax téléphone en plus xam naa gis naa photo xale bu góor bi waaw bu ma ko gisee dinaa ko xàmmee bugguma jël xaalis bi nag di jox ay nit wala di ko jox ay xarit wala ay collègue de travail dama bëgg moom nu ma ko joxee woon ndax bi ma koy jox collègue de travail yi kenn fekkewu ko man rek ak moom ak yàlla léegi man tamit dama bëgg ngeen dimbali ma ma gis doomam bi doomam bi papi la tudd Amérique la nekk benn doom bu góor boobu kese la yore waaw benn doom bu góor boobu kese la yore ci àddina léegi dama bëgg doom bu góor bi euh, mu jokkoo ak yow ndoy baan nga jox ko sama numéro te bu ma jotee tamit ki nga xam ne ki kooku laay war a waxal pour xaasam fekkee doomam la xam am na ay argument yoo xam ne yi tamit dama ko koy laaj bu fekkee moom la dinaa xam ne moom la dinaa ko laaj aussi ci yaayam dara bu fekkee moom la man dinaa xam ne moom la parce que doom bi xam naa ko damay wax moom téléphone maag yaayam bu ñuy liggéey am na ñu fi doon ñëw ñoo xamante ne ji chaque jour dañu fiy ñëw xalaas ne ñu dafa benn femme bu tudd Dieynaba Sarr hmm. bu leen tiriande ah baax ñii ay millions la leen jël ñii seen i passeport la jël ne leen dañuy da leen di yóbbu bitim réew hmm. hmm. ba saar moom police jàpp na ko ah mbooleem ñu fi mës a ñëw di wax ne ba saar dëkk rëbës daf leen a am na koo xamante ne ay xari tabaski la ko dóor opération tabaski. Hmm. ñoom ñëpp bu ñu ñëwee fii nañ leen wax Dieynaba Sarr mi leen escroqué wala mi ñu ne moo leen escroqué. Hmm. ban police la nekk ñu dem lijjanti jokkoo ak moom parce que xamuñu woon fu mu dëkk. Hmm. ñii da leen di da leen yóbbu bitim réew ñii nee ay ay ay ay day génne ay financement ci banque yi ñii nee nañu daf leen di c'est-à-dire dafa dóor a dóor a ba xolam sedd léegi nag information bi am mooy police teg na ko loxo ban police la nekk bu gaa yi ñëwee dinañ leen wax mais mënuñu wax ci rajo ban police la nekk damay ragal ñu songandoo police. fekk fekk kaso yi sax dafa fees. tey keneen mujjantalu kii def lu bon. ñaata kii def lu bon moom fi muy mujjee ñaata nit la dóor. ci loxoy yoon ñu jox ko ñu jox ñu jox ñooñu liif ñu tiim ko ñu woo ñu mu dóor ñëpp ku ne ñu ne ko mosal ko juróomi kii. mais ban pourquoi yow yi dafa fees. kaso yi dafa fees quoi yow yow pourquoi su communication yëpp yow violence la. ah mais mais mais yaa ngi may accusé. non mais non mais lan moo tax ay ñu koy dóor pour lan. pour ah, lan ñu koy dóor mais parce que dafa dóore. mais yoon jàpp ko ñu war ko teg ay daan. daan non non loolu loolu day après fii quelque temps nga gis ko mu génn ci mbedd mi dox. c'est vrai ko ci am. Ah. day def ne weng dem fekk avocat bu na fekk mu jël ko. mais mais Ndiaye avocat bi toog di loo xam ne da da koy leer na bu doon moom lañ ko def de ko plaider. mais Ndiaye tout sauf moom dóor dóor. waaw waaw mais dañ ko war a caw caw caw yi saf sap déglu ah na ngeen <laughs> gis ngeen li muy def de. wuyu ma mm. waa mais Ndiaye. ban machine bi ñu doon wax day defaree ndox te nekkoon Cambérène ndox mañ ne noonu ndoxu ndoxu poto poto yi la xamu ndoxu uh, kii wanag yi. machine Bill Gates waaw moti machine boobu moo waxoon ni lan la gars yi wax du dëgg. Mm. machine boobu laa xam fu fu mu mujjee ndox mi ndox mi ñuy jaay pare na wala parewul. ah gileem na bu tëwee naar jommali pël. ah ndekam yaa fi machine bi. sarakule yaa ngi jooy gileem bu tëwee naar jommal pël it dafa am ñu mani ya yow ya, yaa fi indi machine bi déedéet dafa am dox ci ndox mi waaw dem ba fañ koy defaree waaw yow kay fa ko bàyyi fa la machine ba nekk yow kay bu ko laaj jugaatal toppaat bi fa nga machine ba nga lijjanti fu machine ba toll machine ba waaw te ni machine day defar ay mbuusu ndox yo xam ay ndoxu toilette la waaw ñooñu bëgg a xam nu ak machine ba dinaa lañ jox seen numéro waa xam nga lu ko dal xibaar daal day wér rek. Hmm? benn doomu Sénégal la bu nekk bitim réew di daan dooleem di jaay li baan di wax ci Facebook ak réseaux sociaux yi rek lu mu defar dana ko yàq. Hmm. waa ji nee na am kenn ku ko demandé ami mu ajouté ko exposé ko marchandise am waa ji woo ko appel vidéo fexe ba am kanamu waa ji. Hmm. jël kanamu waa ji monté koog beneen image yu beneen bu def taatu neen. jël imaginer ko boo ma joxul xaalis. Hmm. dama koy siiwal. envoyé ko Sénégal ne image yi yaa ko yónnee sama jabar. Hmm. te waa ji ma nga bitim réew. Mhm. yor fa jabaram. Mhm. yor fay doomam. Mhm. di jënd ak jaay. gëm boppam sax. mi ngi ko mi ngi ko mi mi mi ngi ko defee ci benn logiciel boo xamante ne bi ñuy defee suñuy gëstu wax nañu ban logiciel moo koy def mais bala ñuy sori. auditeur yaa ngi xaar. je pense euh, Bandicam la tudd. logiciel bi waaw ah, Bandicam. Bandicam la tudd moom moo koy def. bandi la Bandicam. moom moo koy def. xool xoolal lom ma nga ca Instagram ba fexeel ba bul génnee sama numéro ci Instagram <laughs> lom de ku moytu <laughs> téléphone bi ngeen gis Instagram bi moomuñu ma ko man benn 33 10 laa yor <laughs> wuyu ma. Hmm. déglul waa ma nekk bitim réew fii di fi daan sama doole nekk fi ak sama njaboot ñu nekk fi ak sama soxna di jaay ay ma toog fi daal jamono jee weesu ci Facebook bi ma si doon wane samay yëngoog yëpp. Facebook bi daal ma jékki-jékki am ku ma fi demandé ami xamatuma nag ban jamono lu ma demandé woon ami mais dafa nekk sama xarit sama ami Facebook. ma accepté ko man daal maa toog ba fan yee passé daal mu dimanche bi bay passé war na maa ngi ci salle bi jaaxaan noonu di seetaan information sama doom yi nekk à côté di seetaan télé bi ma wooyee appel vidéo ma décroché bi ma décroché allo allo mais écran mu ngi ñuul kooku moom waxul allo allo allo moom waxul ma coupé bi ma coupé téléphone bi ñu dawaat ay beneen presque trois minutes mu rappelé waat même appel vidéo ma décroché allo allo nanguwula wuyu ma coupé téléphone bi ndekete bi ma woonoon appel caméra bi ba ma décroché capturé na sama kanam capturé sama sama voix dal di jël sama cër sama genn am num ko xaajee monté ma benen genn dal di am dal num ko defaree ci internet bi ba nga xamanteni ci si boo gisee da nga nan ki waji la mu am nu mu ci defee noo xamante ni damaa mel ni damaa toog génn génn samay cër di ko wane. moom mu pare si loolu après ay dix minutes la ma envoyé ma dama am vidéo bu ma lay jaay bi ma ne dama am vidéo bu ma lay jaay ma ni ko vidéo boo may jaay maanaam pour mu envoyé ma vidéo bi ni ma vidéo bi boo ma joxul xaalis dinaa ko balancer ci internet bi ma xool ma ni mais kii day fo wala lu muy wax ni ma ne ko jox xaalis pour la munuma nag may jox xaalis danga may jox cinq cent euros xaw ma mu tuddi dama trois cent euros ma ne ko sa waay munuma am ma ne ko xoolal dugalal mu ngi làkk tubaab nag quoi bu ma ko nee dugalal parce que amoo dara lu ma la jox parce que xalaat naa xam naa ne lii du man ma lu may jox kenn parce que saa yi damay daan doole quoi di liggéey di ñàkk donc xaalis li yombewul noonu bi ma ko waxee loolu waa ji jël sama ami Facebook yi demandé leen ami ñoom ñëpp mu yónnee leen yónnee leen vidéo bi waa donc leen daal taxaw dal xam nga commencé yàq sama image quoi di ma woo di ma menacé côté bu nekk mujj gi mooy woo naa moon nañ waxtaan donc nag man naruma woon sax dugg ci ay leeral dama noonu bàyyi noonu rek ak lépp su loxo suñu borom mais sama mbokk ak sama grand frère ñoo ni ma di ñu tuuma waa du dara mais da koy def ndax da ngaa yor njaboot da nga yor ay doom ñu ngi màgg donc te fii Sénégal lañ nekk léegi nag da ngay jéem a dindi tuuma nga wax mais man li ma wér ba wér mooy man moom mën naa teg kaamil wax ni foofu Sénégal googu parce que waa ji tamit daf cee bindaale comme quoi que ni benn sama jabar la ko doon yónnee mën naa teg kaamil ba pare toog di xaar nag wax tamit ni Sénégal googu ba xam kenn dina ñëw taxaw daal ni mos nañ koo dégg muy di jabaru jàmb wala dara man aw ma jafe-jafe soxna aw jafe-jafe jigéen waaw loolu moom maa ngi koy sant suñu borom nangu naa liggéey góor yàlla laa waa te xam naa it tamit sawaay man ñaaw ma quoi ñaaw boo xamante ni damay toog ci ay écran di ci jéem a am lu may kontaan feebaru ma nag dara jotuma ak góor yàlla laa bàyyi fàll laa xamul loolu jaayante ñàq daan sama doole ku ma mën a dimbali ma dimbali la waaw loolu daal moo taxoon ma ni xaaral ma leeral ñu xool daal waaw donc daal xaw a wàññi daaw waaw waaw daal di wax daal wax daal wax daal après suñu borom moom li ci ko quoi na ma nag ba ci kanam borom parce que bu ma toogee ñaari fan daal di dëgërlu mais damay xalaataat am na woon naqari nag moom ak naqar ñoo ànd quoi mais noonu daal man woon dama koy wax daal leeral te dégg naa vidéo bi ñu koy jël di ko di ko partagé yàlla neen la quoi. xalaas. fi jëm mooy tey journaliste yi <laughs> Ndiaye xamoon ne xamoon ngeen xeer kii dafa am benn journaliste bu tuddoon Mohamed Touré ay jamono. vers les années quatre vingt huit quatre vingt ngi woon BBC naa BBC mi ngi woon fii léegi nag am soxna su mu amaloon doom bi ñu amee doom soxna si daawul nàmpal xale bi ndax xale la woon moo xam ne nag daal di jël xale bi ni ni yaay ji dama bëgg ngeen abal ma ko pour un mois mu yóbbu ko Guinée ci papaam euh, ci ceeb sama ci ay mbokkam daal. Mhm. après ñu indiwaat ko xale bi ci si à l'âge de six mois ba mu ko yóbboo ci la gëj a ñëw. li ci gën a garaaw mooy journaliste bi bi mu demee dafa takk jabar mais après dafa feebar gaañu fa. Hmm. femme bii wax nii nag mooy seet doomam bi nga xam ne moom la am ak journaliste boobu. ñu déglu ko waaw. ayca. sama problème mooy dama amoon doom ak benn góor bu tudd euh, Mohamed Touré mu ngi nekkoon journaliste Africa numéro un euh, bi nekk wet Saint-Michel am naa ak moom benn doom mu ngi tudd Nazir Barnes Touré. Euh, C'était en 80, euh, 88 89 euh, bi mu demee egg foofu ndekete dañ ko jabar mu toog foofu euh, yàggul mu gañu. jabar bi mu amoon dafa mujjé dem seyat feneen te dégg na jabar gi almaam yàlla dëkkoon Guinée Conakry euh, mu ngi tudd Marie Keita sama dom mu ngi tudd Nazir Barnes dafa newoon dafay dem pour un mois toog naa lu ñaar ñetti weer dégguma ay nouvelle am après ma laajte benn mbokkam bu nekkoon foofu mu ngi tudd Mbalia euh, mu ngi nekkoon marché Sandaga ma laajte ko mu ne ma ah Mohamed de am na euh, ku mu nekkaloon de euh, jigéen bi mu nekkaloon dañoo sëy deux mois après ma demaat ma laajte ñu ne ma dafa gaañu ndekete bi ma nee dafa sëy boobu fekk na mu ngi woon hôpital mënul woon dellu si Dakar mu toog hôpital lu mot ñetti weer mu gaañu bi mu woy déggatuma ay nouvelle am wut naa ba sonn ma sëy man après ma dem Grèce bi ma demee Grèce ma woote ci ancien numéro buñ ma joxoon pour ma woote Guinée mënu nu woon fexe ba jot ko parce que si salon de coiffure la jaba euh, femme bi dafa tëj salon de coiffure bi ma laajte sama rakk mu am benn Guinéen buy jaay sandwich foofu sama wetu kër euh, wet euh, ci suuf ma laajte ko euh, mu ne euh, ñoom ñoo ma wax ni jabar gi dafa euh, mu sëyaloon dafa toxu. bon moom mais naka lañ mën a yóbboo xale bu am six mois boo xam ne feragul xale bu am six mois feragul de bi ko jëlee ci yow fan la ko yóbbu dafa. xale bi bi mu amee six mois fekk boobu man aw ma woon aw ma lañ ko doon nampale. ma boobu maa ngi am dix-neuf ans bi ko jëlee fekk maa ngi woon ci ay sœurs yi bi ma wasine ba pare ma sama yaay daf ma bindal pour may dem di jàng ci sœurs yi Bambey léegi mu ne puisque c'est comme ça moom occasion la comme ko xale bi dafa doon nàmpa ak biberon mu noonu daf koy jël comme ça mu dem mu xam mbokkam mi après mu dellu si sama yaay tamit d'accord ci mu ne comme que dafa bëggoon dem pour xam mbokkam mi dina dellu si waat y a de souci amul problème naa ko bàyyi mu dem mais xaw moon ni bu demee dina am li mu am noonu léegi fu mu ne ni sama yaakaar bi yëpp ci yow la nekk pour ndax nga mun ma dimbale ndax ma mun ko ma mun ko gis au moins euh, ma mun a wax ak moom bu fekkee baalu la ma baalu ko parce que euh, bi mu ko jëlee ci man boobu tamit maa ngi am 19 ans sama yaay moo moo moo doon décidé munoon naa ci jël samay décision bopp mais daf ko jël mu yóbbu ko Guinée Conakry parce que foofu la jóge moom mbokkam yi yëpp foofu la ñu nekkoon te moom rek moo nekkoon doom bu góor mais man waxuma woon ni dafay dem dëkki dafa ne dafay dem rek pour un mois après mu dellu si waat. doom bi ban tur la tuddoon ak papaam nu mu tudd. papaam mu ngi tudd Mohamed Touré xale bi mu ngi tudd sama doom maanaam mu ngi tudd Nazir Barnes Touré mais am na benn mbokkam bu tudd Mbalia. sila mu ngi dëkkoon marché Sandaga mooy fi wet fi jàkk bi nekkoon fi jàkk bi nekk marché Sandaga man moom laa xam comme mbokkam ku jigéen ki yor xale bi laa xam tuuru papa ku jigéen ki yor xale bi laa xam turam euh, mu ngi tudd Marie Keita jëkkëram mu ngi tudd Famara Konte démb euh, euh, Ndiaye diggoon nga xale bi yooyu nga xam ne ñu nga Inde mm-hmm. Mm, ak euh, Bangladesh ak ak xom Wajinin fuyobu, waa ji fa yobbu da len don wax ni len mom agent jour la mo tuddu bay Matar Pen ma mm. ak mom xamna ni bay Matar Pen xamna naa ni dinañ daje ci souf léegi parce que il paraît dem ñew na fi. Mhm. mais ña boy nga xam dañ fa nek tumuranke def fa ñetti at te mu leena leen jëli ba léegi ni yaay ji moy wax ni deglul yaay ji. man la yaay Ousseynou mané Pen. Baye Matar pen la xawma Baye Matar ma ne ku mën a sama waaju mën a ma lu ma waxoon bi koy jox sama doom ma ne ko gisuma ci dara ma ne ko Ousseynou papaam dafa wàññeeku ma ne ko mu ñàkk doole ma ko wante yàlla xiir ko mu nekk ci football bi Baye Matar moo ñëw ba fii ba sama kër laaj ma lim ma laaj ma yëkkati ko jox ko aw ma ko woon yàlla xam Baye Matar ci boppam moom xam na ni ma taqalee somu Ousseynou ba jox te it lim ma gëmloo ku ñu ko gëmloo nga jëbu sa doom ci Ousseynou xamaloon na ma ne mère Ousseynou bu demee 1 million 500 mille bu ko fa amee par mois mu ne ma loolu jëriñu ko dara 500 mille sax Ousseynou ma mënu ko faa lekk. wax yooyu mu wax ma yaakaaroon ne nag gor la rek moo taxoon ma dem ceeg moom ndax même bi ñu dugalee visa Ousseynou mi ngi may xamal carrément mère est-ce que Ousseynou bu visa am génnee est-ce que di ko mën a fayal. dencu ma ko de damaa góorgóorlu rek pour def ko kon suñu demee ba yegg si fii mu bëgg fenal sama doom. nga xam ne kon moom fenkat la yàgg nañ maa kii yóbbu ko ci yoon. ma tax takk woote fi téléphone. ndaxte fekk na xam na ne Ousseynou mere na ko rek mu daal di ne ma ah yaayu Ousseynou ah man Ousseynou laa doon woo ni fi mu nekk ni fi ñu demoon Inde fi mu nekk ni dañoo soxla Ousseynou. xam naa ne comme que dégganteewutuñu dafa doon natt sama xel mi ba xam bu duggee lan la ciy fekk man lu ma nit def rek dina ma ko def parce que man maa nekk nit koo xam ne lu ma nit def rek ma tis ko sunu borom mere naa ko de. pourtant mënoon naa dem ci police yi pelante ko pelante wu pourtant yaayam mi ngi fii fii nii West Foire fii man demoon naa ba seen kër bés ma yóbbu xaalis man maa fa dem ci sama tànk ma dem ba seen kër yóbbu fa xaalis pourtant mënoon naa dem ci yaayam ma ci yaayam def ko def ko def ko moom mu nekk Népal mu jékki-jékki yàlla dimbale ko benn bés pourtant nee na yëre entraînement am rek la tuyo sol ko dal. aw na curux Inde dugg fa pourtant bi mu duggee Inde bi ma jokkoo ak moom ma xamal ko ne Ousseynou nga fa mu topp ma ne maire Ousseynou na ma woo pourtant ma ko waxee Ousseynou Ousseynou dafa ne buy dee sax dafa lekk suuf du ko woo ma bàyyi ma ma ne ma en tout cas Ousseynou na ma woo waaw man dama ko booleeg sama benn waay boo xamante ne su ko woowee kooku dina ko jëli fi mu nekk indi ko fii ci man fenn kese bi ma ko xee mu ne ma maire man daal am naa ku ma gis dafa may yóbbu Bangladesh su ma fa yóbboo am na sama benn xarit bu ma fa xam day baske nee na bu ma ñëwee Bangladesh mu daggal ma billet ma ñibbisi wante pourtant bi ma ko waxee Baye Matar daf maa xamal ne ma mère comme ko demee ne noonu kon mardi ma jox ko juróom-benn fukki junni. pourtant dañoo toog ba dégg ne boobu takk na fi jabar dañoo dégg ba toog ba dégg na ñëw na fii pourtant bi am ku ko gis Dakar da koo xamul ne mu ngi fan. il saalu dafa dem il ak jabalam. ci koo xamante ne nga tay la xale ci dëkk lu ma deux ans nga tay la ko fa ba ko fa man demoon naa ba jël sama kayitu kër di ko tay tayle pour sama doom ñibbi ci rek ci tënk way wax ji lu gëna gatt dal man képp ko xamantene ne yaa ma gën bëgg wax gën ma mëna wax suma waxe nga wër man ndom ba tok ci sama kaw ne ci déjj tok dama lay ragal man dal bay matar bo bëggé dégg dëgg dama ko ragal ta bako ki ci kaw nak rek baalu ma ko de dama ko bayé goot mané bay matar lu may wax si mom du doy bay matar pen la tuddu mané mom 1 million 800 lañu la ñu dañ ko ka fay ba mu mot dañ ko kaa fay ba mu mat sëkk ba mu mat sëkk dañ ko kaa fay bu mu leen fa yóbboo lim ma waxoon yépp defu ci dara defu ci dara yóbbu na xale bi tey leen ne ko fa yàgg na amul ñëwul moom ñëw na fi ñaata yoon moom jóge na ñaata yoon Inde di ñëw fii jóge na ñaata yoon Népal di ñëw fii te ba tey gisante wuñu man tegante wuñu ay gëdd. nekk na nit koo xam ne nag am na làmmiñ mën na wax man nag ma néew ma wax wóor na wóoru yàlla bu ñëwaan toog sama kër gii di wax damay doyal sëkk sëkk da lay wax a wax a wax a wax a wax ba wër la da wër ndomb complètement topp ne ko